léegi. non man sax damaa soxla léegi waxtu bi day ko bëggee rek laa koy def. xam ngeen gàllankoor naqari deret bi yëpp loolu la. heure bi da koy fekk muy dara. ko bon numéro incha allah. waaw boo amee gan dañ moo tax. te yëkkati papa yombul. waaw ama jë mu jënd kilifa la wallaahi kilifa la. nga ne Omar Sow may naa la dix minutes. Omar kat fu toll nii. damaa xam ne bu ñu ko waxee waxal looy wax xam nga ñàkk ba pare ñànki moo ko nar dal te ba pare moom boobu ba léegi moom kese moom mooy comme il est le seul opposant xam nga dafa bañ a fay wala dafa bëgg bokkaat ci opposition bi naam ki mu àndaloon dem na boobu ak léegi mi def ay révélation xam nga c'est pas pour la première fois parce que waxoon naa fi ne euh, président l'ex président de la république bu ex APR moom mm-hmm. moo euh, financé campagne yu ñoom euh, président Diomaye ak mm-hmm. Ousmane Sonko moo leen jox ay oto d'ailleurs mm-hmm. ñëpp tey mu ñëwaat ay révélation ay jet privé ak yooyu man nag bu ma doon procureur ci jamono jooje ndax li mu wax nii bu fekkoon ne tey waa Pastef ñoo ko waxoon ci jamono ji ñuy traqué da dégg le procureur daal di autosaisir ñu woo ko sûreté urbaine baa woo ko dig ne ko li nga wax foo ko foo ko teg foo ko teg mhm. loolu ñu daan def nag loolu laa bëgg ñu def ko moom woo ko ba ne ko yow wax ji ji nga wax foo ko teg ba pare benn moom Amadou Ba moo nekkoon candidat wam seen mbëbët bu àggoon tey jamono jii ñu toog di wax dañ koy fal mu nekk président. Mm-hmm. si toutefois bu fekkoon ne Ba tey moom moo gagné ñuy dégg son excellence Amadou Ba ndax di ngeen ko dégg mu def ay mm-hmm. du wax mm-hmm. jet privé. du wax or du wax da koy da koy toogaale. dinañ ko wax noppiwaale. dinañ ko wax du ko wax moom. bu bu bu ñu deful attention sax ñooñu a gaaw ci tëj président xam nga tëj président Macky Sall waxuñu ay man sax ba président Macky Sall boobu noonu. Eh. man baax gi président Diomaye baax ba bàyyi ko mu dem génn réew mi nii nii nii loolu dafa yomb. parce que moom dafa waroon toog fii moom dafa am ay comptes yoo xam ne daf ko war a rendre malgré l'amnistie malgré yu mu effacé taylawul kenn ñoom ñoo tayla seen bopp moom mu tayla leen parce que moom a gërëm ponkalum lëmm nga am sa xel am sa xalaat toog ñu lay saagaloo nit chaque ngoon nga oote point de presse pour lan saaga Ousmane Sonko. Mm. sa promotion yokku. Mm. soo paree dem rendre compte daal ne def naa conférence de presse tey maa ngi dal ci Ousmane Sonko ñëw leen. Mm. Mm-hmm. kenn waxu ko ñu toog di ko seetaan après ñu bëgg wax ne président Macky Sall yaa ngi dem yaa ñu tayli ñun ñu tayli seen bopp. Mm-hmm. mënuñu dafa am benn loo wax léegi lu important. Mm-hmm. mooy peut-être ni ñu jaayee Ousmane Sonko président Macky Sall moo baaxul kenn Sénégal kenn umpalewul kan mooy Ousmane Sonko. président Macky Sall bëggoon xam kan mooy xam na ko bu baax dañoo topp seen bànneexu ba kenn topp lu leen neex xam ne kii moo leen fi nar a jëre ñu xam ne danger lañ ko teg ñoom entre guillemets ni ñu ko daan waxee bëggul ku jee bëggul merci beaucoup nga ne mm-hmm. yow yaay nekk ci kër gi doo am wujju kenn du ñëw te fu mu ne nii wax dëgg yàlla boo am toogee ba doyal keneen day ñëw wala mm-hmm. keneen ñëw toog àndandook yow ñu daal ne ah kii nañ jéem a xool mm-hmm. naka la mën a def pour éliminer ko tous les moyens étaient ñu toog xool nu ñu éliminer Ousmane Sonko muy seen ay ministre muy seen ay député muy seen ay da leen plenty of money comme ngeen di ko financer bi président Macky Sall di di di di jënd jet privé moom Omar Sow fu mu nekkoon. dañ ko déggoon mu pipe benn moo. Mhm. léegi mu dem ba xam ne moo xam nga ñoom dañoo war a gëm yàlla. Mhm. gëm yàlla xam nga mooy lan. toog ngeen na toog a toog a toog a toog ba Sénégal yi xool toog bi ngeen toog arrangé wu leen. Mhm. defoo leen dindiwu leen. ñu perte espoir ci justice ci lekk gu cher ci naan ci lépp. Mhm. yàlla def jële leen fi bi su ndox raxasaale leen yóbbu leen léegi yéen ngeen bañ lànk toog la yéen du ngeen dem mënul nekk. <laughs> looloo sénégalais ñoo fal nit <laughs> may ma may ma dama laa mayoon. <laughs> sénégalais yi ñoo jël seen ay carte électeur dem ci urne yi toog voté président Bassirou Diomaye Faye. bàcc leen bàcc yu méttee méttee métti métti amul benn responsable bu mën a toog ne sama bureau de vote sax maa ko gagné. Mhm. borom Ziguinchor ak borom Dakar ak borom Kaolack yëpp. ñu bàcc leen jaaxle naan awal yi bari waaw léegi yow sénégalais ñoom ñoo ko fal lan lañu fi dégg sa ki nga àndaloon. Mhm. muy président Macky dem na. Mhm. léegi yow da nga doo gëm yàlla parce que mënoo opposé wu yow déjà doo doo plan A. Mhm. doo plan B doo def doo dindi. buñ la sànniwoon lacrymogène léegi nga jooy ndax fii nga dem ñu yóbbu la commissariat conk nga ñëw toog di def interview ba say bët di waaj xonk ci xonk àllub mm. neen kon kooku dina opposé wu mm-hmm. gëm yàlla teg sa gémmiñ tey xool li ngay wax mm-hmm. parce que mënoo nekk opposant numéro euh, un ka nga yaakaar sax mu jël deuxième muy sa leader Amadou Ba ne tekk tekkaar bu mu demee màkk ba tey ko mm-hmm. war a nekk opposant moom opposé wul yow en tant que suqam nga ne yaay opposé wu kan nga opposé foofu laa bëggoon ñëw pareegu ma léegi nag <laughs> léegi xam nga ñoom Eh, di nga projet déedéet xam lu may di nga boo ko porté mm-hmm. waaw nga am projet nga ne lii mooy sama mm-hmm. projet mm-hmm. yaa ko porté ba ñëw teg ko ci réew mi da nekk ay anticorps xam nga mooy lan bul saaga bul xuloo anticorps ah. bul xeex mais projet bi nga teg da nga koy aar di nga booy yi nekk fii nii nii am nañu ay booy parce que yoo xam ne ñoo ko gën a jàng ëpp ko xam-xam ëpp ko diplôme gën koo mën a wax gën koo mën a sañse fu ñu waxee benn waxal fukk mm. bu ko saaga bu ko wax ko metti mais ku naka toog pour nasaxal ki nga àndal wala pour war a wax dara sa candidat bi nga xam ne yaa ko porté à la de ce pays. Mhm. nga ne projet nga amoon yow da nga koy aar. moom du jomaay moo koy tontu wala président Sonko moo koy tontu ku nekk ak sa level ku nekk ak sa niveau. Mhm. te man sax lu ma ci gën mooy patt pattal parce que moom jarul tontu. munoo toog ne bilan Oumar Sow lii lan la def pour sénégalais yi. du ndox du ceeb du diwlin moom mi ngi doogaa bëgg fël parce que xamuñu ko woon. bu point de presse amee mu ñëw def comme sa mbaxane yi def xaftaan mu toog musul xeex musul xuloo musul naan lacrymogène kon kooku mënul tax ko mënoo toog nag tey li ngay def nii ay jugement de valeur léegi revenons au principe ma ne da nga koy xas tey yow tamit yooyu problème bi la comme ko xamee rek la ko xamul sama kër xees kooku doon fréquenté wu ma ko journaliste wuñu ci dara dara dara xaw ma ku mën di wax loolu man ni nga xamee Omar ko xam sax yow. fréquenté ma ko fu ma hmm, ma ko. ma précisé ko waaw ci tàmbali bi xam ay loolu foofu laay waxee quoi euh, yaa ma laaj wala xam naa ko ci seen politique parce que bu ñu daan def seen ay organisation bu ñu daan toog di wax dama koy fekkee fi mu waxee laa ko doon toog. Mhm. bu toogoon waxul loo xam ne mën na ci andi preuve tey boo demee bay wax. nga ne yow kilifa nga dangay wax am njoboot am doom am sénégalais yu lay seetaan di la dégloo mhm. boo demee ba am fit taxaw wax benn mbir. war nga am ngor génne preuve ne lii kat ak lii ak lii la nekk. mais ñi ko war a woo tamit war nañ ko woo. nañ li mu leeral la ko teg fi mu dëkk. munoo toog gis nga dëkk bi ci rupture boobu daf ci war a ànd ba foofu. waaw nit ku nar a toog ci télé wala toog taal sa caméra rek. Mhm. toog sa rajo yi kii toog wax lu la neex après ñu bàyyi la noonu naan déedéet Euh, dañ ko fi euh, convoqué woon mooy li ngay wax sànq dafa baax ñu leeral ko ca xeex ba ba mu xeex ak yaraa ñu yóbbu ko fële mhm. mu naan non maa ngi assumé te boobu kenn laaju ko lan nga jotee ka nga doon xeexal mu daal dem ci page am bind ñu gis réaction capitaine Touré mhm. xam nga période fekkee dañ ko convoqué sur ay base politique ak yooyu nañ ko bàyyi parce que tolluñu foofu fekk mhm. boobu nekk woon ay politique wàllum xeex ca biir pale ba ñoo njëkk xeex ci palais ci lañ leen jàppee ci lañ ko jàppee dem yóbbu ko. Mhm. waaye dañoo toll ci nekkul defante wala fayu. Mhm. waaye ci réew mi fi ñu toll ak rupture bi nga xam ne président Diomaye woote na ko son excellence. Mhm. képp ku fi toogati di wax ay wax yoo xam du dëgg. wala ngay wax pour sosal nit nañu la woo te président Macky Sall itam waroo génn sos bi foo ko mën a yóbbu la fu mu munti dem fu mu munti dem. moo xam ci sa parti nga nekkoon la moo xam parti bi fi nekk. ku fi toog di wax loo xam ne du dëgg dañ la war a woo nga leeral parce que dafa def dañ ko yàgg di ko def. oui merci ba jërëjëf jërëjëf euh, Ngone xam naa ne sujet boobu dañ ci mais mais daa am lu ma bëgg a souligner. ci kii boobu noonu rek parce que Amadou Ba euh, waxul. Mhm. Euh, nee nañ dem na mag après sur Paris et cetera. Mhm. mais Amadou Ba day opposé wu de. mu ah dafa am loo xamante ne. Pausman xam naa jotoon nañ ko évoqué.